problème mu fisc manam impôt ay compte ñu contrat publicité yu ñu dagg wala sax buntu xatal bi nga leen di buntu xatal wala won fo won ci jub jubal Jubanti, wara tax yu xuyu ñu memeku jamono yi ci kaw presse bi suñu sukkandikoo ci Ahmadou Bamba Kassé jiitum Simpix manam, tay bi nga xam mo ëmb lepp lo xam mo jëm ci mbirum taskatu xibaar mo yeglé dañuy def journée sans presse manam journée sans tas xibaar rek la wala est-ce que a la waral nak tay ñu jël suñu micro pour mëna a laajte askan bi lan lañu xalaat ci li nga xam modi journée sans presse boobule. di wax ni euh réew mi nak ñun ñoko bok té nak réew dañ koy défar waaw réew réew li olof Ndiaye wax réew dañ koy défar ba nak jomaay ak Sonko man limay ñaan réew mi ñom ñoko yor mais nañ def tolérant tolérant mooy que mooy nañ leen ko bët. petit carte sax comme que lépp euh, Macky Sall mi mi fi nekkoon daf leen ko bëccëgaloon Diomaye ak Sonko nañ leen ko bëccëgal waaw ñu koy def ndànk ndànk te xam naa ne fay lépp moom ay quarante milliards dina xaw a diis ci seen ci seen loos yi nañ leen ko bëccëgal ñu moratoire leen leen ko ñu koy ñu koy fay ndànk ndànk réew mi réew mi mën a avancer parce que fi ñu toll nii nag wax wax dëgg yàlla tal taluñu bras de fer taluñu ko ci réew mi. waaw mais xam nga ñoom tam ñoom euh, ñoom loolu warul leen parce que réew mi senegal lañ nekk nekkuñu Mali nekkuñu Rwanda loolu sax ñoom waruñu ñu ko xalaat ba suñ leen wooyee ci dal ñoom li ñu def mooy jéem a apaiser parce que parce que loolu day yee fitna te fitna baaxu ci réew mi réew mi. fu ñu toll ni liñ ci bëgg mooy Sénégal buy dox mais bëgguñu Sénégal buy dellu ginnaaw te nag ñoom ci ñoom la waroon na njëkk commencé biñ biñ leen wooye ci impôt rek dañu waroon na taxaw seddal ànd ak état bi xool nuñ leen ko mën a moratoire ñu defoo leen ko euh, Sénégal Sénégal dem mais suñ bi mais suñ bi buggee nekk di

D'afal lii ak lo xamanteni mom modi ligueum journaliste wala ñu ne nguur gi mom mo attaquer la presse wala comme tëj comme ce fut le cas en 2021 ba 2023 avec fermeture Walf Sen TV nga xamante ni nañ ko fi ñun ñep ñu nakaru ko ba paré wacc sur le terrain di eh, ñaxtu lolu ba ñu rétablir sen signal mm-hmm. bu fekkente lolu loolu la nag ñun ànduñu ci waaye bu fekkente ni lu fermeture boo xamante ni si coobare patron bi la loolu mënuñu ci dara. Mhm. mais man ce que je peux pas comprendre man yow patron de presse nga ne amatoo en trois mois maximum quatre nga ne amatoo benn fond pour faire ce journaliste et existé nga plus de douze ans. Mhm. c'est contradictoire da nga waxu dëgg nit ñi. Mhm. wala da nga respecté wul sa liggéeykat yi douze ans lan nga daan am.

manam, dañoo ñëw au lieu que ñu utiliser la presse pour un levier boo xamante ni day participer à la sensibilisation à l'information à l'éducation de la population ñoom dañu ko def benn moyen boo xamante ni gagne-pain la ñu am ci feesal seen poste seen journaliste yi bu ñuy dem reportage ñuy dox wala ñu ne leen boo leen demee di nga fa am per diem un patron qui favorise ça kooku buggul loo xamante ni moom moo di la crédibilité de son information mmh. tey jii bu ñu nar a tëj parce que ñu ne amuñu lan moo amuñu qu'est-ce qui a changé en si peu de temps 12 ans yow nga nekk à l'aise 4 mois nga ne da ngay dund loo xamante ni di la calvaire mm-hmm. li nga daan am amatoo ko est-ce que tu es au service de la population wala sa poste nga fi nekalon. Mm-hmm. bu fekkee ne loolu nu ñoom seni combat la a ñoom mm-hmm. réew mi ñun ñëpp ko bok. ñun ñëpp ay sénégalais lañ Ta ku nekk rek bo sañoon da ngay ñaan yalla réew mi baax te am réew balaa muy baax fokk nit ñi dëggu ñu tege ci aw yoon ku nekk xam sa wareef nga def ko la wareef bi nag ah, yow mi nga xam ne da nga yëngu tey xoola ci loo xam ne ni day laaj nga fay impôt ak ku man di doon rek xoola ci réew mi la war nga koo mën a fay ndax impôt bi ngay fay tey boo demoon tey ba am ci ah, wala ay jafe-jafe yaa ngi dégg wala jomaay wala mën na cee jàpp la ak keneen ak keneen waaw kon nag xool doo bëgg nag sa liggéey te te bu suuxee ñu jàppale la ba pare nag sa liggéey na buy baax xoola di dox yow doo fay dara xam nga loolu nu munta ne waaw maanaam te bu fekkente ne xoola li leen wax ñoom a ah, la ak lu muy seer seer seer seer seer ah xoola na xam ne bu fekkente ne lu wareef la muy dëgg mu tegee xoola ci dëgg rek ah mais nañ ko fay waaw ndax tey ndax tey mënoo ne nga nekk ci am réew mais di jariñu ci réew mi di jariñu ci askan bi di dund ci réew mi nga ciy faj say soxla te amoo lenn loo defal xol waa réew mi waaw kon nag ñoom seen impôt yooyu noonu ñuy fay ñoom buñ ko xeeb waaw ndax impôt yooyu noonu tey mooy jariñ askan bi waaw ta yaakaar naa tey am média yi ak kum ci manti doon rek ah la askan bi tey moom nga fi teewal waaw mais kon nag munoo di teewal askan bi ba pare ah, ah waa réew mi ñu soxla seeni impôt li ngeen ne du ngeen ko fay naan ay dafa seer rek ay nangam ak i nangam waaw li la jomaay moom moom li wax lu leer at naññi la jub jubal la jubbanti te yaakaar naa ñun ñu ko fan ñëpp loolu lañ bëgg jub jubal la jubbanti te jub jubal gi du caagi ne jomaay rek a koy def waaw ñun ñi nga xam ne moo ñu yilif mooy suñu njiit ci ñun la war a njëkkee ndax jub tey ak jubal ak jubanti moo tax ñu fal ko waaw kon moom tey ah la la tax tey ñu fal ko ñun ñoo ci war a jiitu waaw mais luy fulla daal xool di fayda mooy li nga xam ne moom la wax média yëpp fay ko ñoom nañ ko fay waaw nañ ci teg xool la suñu bakkan xoola ñu fay ko waaw ndax mënoo ñëw yor sa entreprise ba pare xool la di ci attedd ba pare nga taxaw ne lii dafa seer wala doo fa impôt ak nangam ak nangam waaw na ñëpp fay lu mu métti métti métti nañ ko fay ñu xam ne ah, dërëm bi du génn ak gaal gi waaw ñoom la ñuy fay ci réew mi la jëm waaw te du duggee xool ci réew mi muy média beeg ak ñëpp a gis seen bopp a ah, li njariñ mooy nañ fay. noo baal moom noo baal moom wax dëgg yàlla moom ñoom ñoo def chiffre d'affaires ñun Sénégalais yi ñu leen koy baal déedéet duñ leen ko baal de mais mun mën mën a na ko bëccëgal ñu moratoire leneen ko ñuy fay ndànk fa ndànk loolu mooy dëgg mais kenn du la ko baal parce que àll àllu réew mi la loolay dëgg. moom nañ bàyyi xel ne la technologie bi avancé na de. waaw ndaxte lu xew tey abala cee benn journaliste di jot tey nga séen ko sa téléphone sa statut te la koy xool la film ay téléphone kese la waaw xool nañ xam ne nag affaire bi avancé na bu baax te moo ngi dox bu baax a baax waaw mais am na tey ñoo xam ne nii siiw nañ ci àdduna bi ñëpp ak ñëpp xam nañ leen te yoruñu benn site internet seen téléphone képp lañu yor di jàllale ay information ñëpp di ci jot waaw mais nañ xam ne daal luy fulla xool di fayda mooy doomu aadama da ngay bañ nit ku la yëpp waaw boo bañee na nit ku la yab di yab sa askan na wala di yab say mbokk di ko jaare ci yow lay wareef mais danga nga koy def lay wareef nag mooy jub jubal waaw la nga xam ne mooy fulla wala di fayda kenn waru la ciy jiitu ah waaw bu ñu demee rek ba mënuñu koofe rek tey tey après exemple tey fekkente ne cent cinquante mille la ñu war a fay ma jox la benn exemple cent cinquante mille waaw boo amee sa soixante quinze mille franc xool nga joxe ko ñu appel la benn dalle boo xam ne nii ah boo fa eggee ah mais na la wóor a akkale ni boo fa eggee taj lii da ko mën a fay ah xoolal ñu jox leen loolu waaw mais ndax moom neexut ba neexut mais lu la bett man la waaw mais en daal moom nañ jéem a xool nu mu gën a rafete gën a naayise ñoom ñu fayee ko te kenn du ci gaañu waaw waaye nag moom luy fulla di fayda mooy nañ ko fay ba mu mat sëkk léegi ñu ne la paiement impôt loolu moo tax On, rappelle aussi aux nouvelles autorités, trop d'impôts aussi, tu l'impôt. Si. Nous redresser toutes les entreprises. Mais nous avons le patron de presse marégiane. Nous avons sa salaire. Tu as un salaire maigre de moins de 100 000 francs. Nous un impôt à la source. Nous avons 86 000 francs nga doxantu ak sa 86000 francs yow tu as tout le mois les 000 francs foofu ngay fay say transport foofu ngay jëlee say nourriture ses besoins ta famille n'a rien alors que tu n'as pas de vie de famille léegi lu ñu dagg ci sa salaire ñu ne la demal nga fay ko impôt demoo fay ji impôt ñu ne la léegi nag li li nga coupé à la source delloo ko kaay nga fay ko état tu cries au scandale mm-hmm. te qui se moque Tu yow sa employé jooyul

ñu defal leen ko moratoire bëtig bëtigal leen ko Sénégal dox fi ñu toll nii moom ñu ay bras de fer xiiroog ngaay bi doy na sëkk. lii lañ leen indi andiloon ci li nga xam ne moo di journée sans bi ba tax na dégg ngeen nga xam ne moo di askan bi lan lañ ci xalaat di ñaax ki nga xam ne nag moo di président Bassirou Diomaye fay mu geesu ñi nga xam ne moo di taskatu xibaar yi bu baax baax ñoo ngi leen di jox nag dig daje ci beneen tam incha allah.